ñoo gën a lam de julbeere yi ñooro roy makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami abdu buukar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi safoo seen chaîne bii di xam sam réew bi TV dellu siwaat nanu di leen nuyu di leen ziyaara muy bokk yi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew tey safoo seen chaîne bi di Xam Sam Réew TV muy kippaango gi nekk ci Facebook bi di ñi safoo Xam Sam Réew TV ak kippaango support Xam Sam Réew di sëñ Basiru Fall ñoom ak sëñ Bamba Meg te nekk ca Amérique ñoom ñëpp ñuy leen di nuyu di leen ziyaara di jébbal ab nuyoo bu jëm ci kippaangook cosaanu senegal ba Cheikh Gueye ngir mu jot lu ko waa kippaangook yëpp noonu lañ koy defee ak sëñ Ablaye Cissé Saa Wolof moom it ngir mu jottali nu ko kik paangoog sàmm sunu mbatit mbokk yi njañ sa itam fàttewuñu leen moo xam ci Facebook bi la wala ci YouTube bi bokk yi dellu siwaat nañu ci juróomeelu pàcc jëm ci ndonol dameel Birima Ngóone Latiir ñëw nañu ak yéen ci ñeenteelu pàcc bi ba dingeer isa tend di debb sukka bindoon fedeer ba ngir mu jàppale ko ba mu falu dik ko it ni ko bu faloo traité yi nga xamante ni bii tàmbali woon ak Damel Birima Ngoné Latyr dana ko wéyal ngir seen poste yooyu ñetti poste yi ñu bëggoon ngir ligne télégraphique bi bàyyi ko ndakaaru ba ndar xanaa ñuy fàttali rek ni jamono yooyu tubaab yi neexoon nañu ak waa Kajoor ndax xeex doxagul seen diggante xeex bi njëkk am diggante tubaab yi ak Kajoor ci ndammeelu Makoddu Makoddu ci la doore kon jamono yi doon nañu diisoo ak Faidherbe muy tubaab yi ba tax sax jàmbur yi doon sàkku ci moom ci ñetti lawax yi bëgg a falu mu tànnal leen waaye bala may dellu foofu nag dafa am loolu dama ko war a leeral ndax am na ñu ma koy laaj loolu mooy lan mooy silmaxa jeng silmaxa jeng mi nga xamante ni doonoon na buur ba jolof diirub ñaari at silmaxa jeng mi nga xamante ni ñëw na ci mbiri kajoor yi di ci lijj ba waa kajoor bind Faidherbe di sàkku mu artu silmaxa jeng ngir mu maandu ci mbiri kajoor silmaxa jeng mooy aw turam mooy tanoor fatim kura ngay fatim kura nguy jeng tanoor fatim kura ngay jeng mooy aw turam moom waajuram wu jigéen mooy jolof jolof waaye moom war naa mën a dugg ci mbiri kajoor ndax bu dee ci geño mi ngi bokk ci njigéen mu baame di ñu yàgg ci kajoor ndax xam ngeen ni njigéenu baame fala damel Amari Ngoone Sobel jële woon waajuru taawam bi di Masamba Takko te moom Tanor Fatim Coura Ngueye Dieng baayam doonoon na jëwri ñi njigéen jëwri ñi njigéen nag ndoom ak tànk la gu am solo ci kajoor bàyyub tanor fatim kuro ngay jëng mi nga xamante ni doonoon na jawriñ jigéen mooy waynde borso mbësin jëng waynde borso mbësin jëng mi bàyyub tanor fatim kuro ngay jëng doonoon na jëwriñ jigéen moom euh, Wayne Borso fat euh, Wayne Borso Mbisaan Jeng mi waajuram bu jigéen di ndeyam mooy Borso Fall Borso Fall moomu calaw mbañ jigéen faal mii baayam doonoon na bu mi nguraat kon ñoom saf nañu ci kajoor teyit tanoor fatim kura ngay jeng mii di silmaxa jeng doonoon na jëwriñ jigéen ci ndammeelu may sa tend joor may sa tend joor bi nga xam bi mu saayee sëtam bii di Birima Fatma Birima Ngoni Latir moo ko wutu bi muy doon dammeel Tanor Fatim Koura Ngay Jeng doonoon na jëwriñ yi njëgeen kon li mu bëgg daa bokkut ak bëgg-bëggu jàmbur yi kajoor yi ba tax ñu bind Faidherbe di ko xamal ni na ci maandu moom ci boppam sax bind nañ ko leetar xamal ko ni ko na maandu ci mbiri kajoor moom nag di tanoor Fatim Koura Ngoye Dieng wala Silmaxa Dieng li mu doon fexe lépp mooy gannaaw ba mu doonee buur ba jolof ñaari at gannaaw bi fexe na ba fal bakkantam xëri jaloor nga xam ne ay atam soteewul soreewul ak ati Lat Joor fexe ne ba mu falu doon buur ba jolof mu bëgg itam jàppale mbarget jaarale ko ci debu sukka ndax moom xalaatam moo doon dem ba Kajoor ak Bawol ñu mën leen a boolewaat fexe na ba bakkantam xari jaxor Jaloor falu ca Jolof buur ba Jolof Barget Lat Joor Ngoone Latiir bu fexee ba mu falu ci Kajoor suñu munta nekk benn nit lëkkaloo dana am baat euh, ca jolof waaye dana ko am itam ci kajoor lu tax moo fexe ba ñu fal buur ba jolof kon bu fexee ba ñu fal Lat Kajoor ak Jolof dana fa am baat tey lay bëgg-bëggam mooy mu fexe ba ñaari réew yooyu ñu boole leen kon kooku mooy silmaxa jeng maa ngi ziyaare Baye Cheikh Gaye ndax dafa am ñoo xamante ni miinuñu turu silmaxa jeng wi moo tax ma doon indi leeral boobu fanu toll woon nag mooy bi nga xamante ni Faidherbe bu jot na leetarub Linguère Debba sukk tam ko doon xamal ni ko bu ko jàppalee bu faloo dana ko defal li mu bëgg te mooy postam yooyu moo tax nag ba ñu dajee ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier waxoon naa ko ci ñeenteelu pàcc bi ca la Faidherbe ba xamal natt ngoy tubaabam yi bëgg-bëggub Linguère Demba Sukka mu ni nag ak lu ci mën di xew daal kii falu dameel kajoor na ko nungul rek ñetti postam yi su loolu amee rek danañu mën a xaatimante jàmm jot dana sax ba faw waaye nag bu fekkente ni dameel bi falu gàntal na loolu mbirum kajoor danañ ci daal di jóg taxaw féetale ko boor danañu wut ay ngànnaay yooyu xare yooyu dana bàyyi koo tugal ci seen kilifa ya nekk foofe te bu ñu ko jotee dammeel boo xamante ni bii gàntal nga li ñu bëgg dana ñu dal ci sa kaw ak ngànnaay yooyu nga xamante ni dana bàyyi koo tugal ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier monsieur Félix bi nga xamante ni moo doon directeur des affaires indigènes xeexub sëriñ si doxoon diggante sëriñu njàmbur si ak Makoddu te ba ñu leen moomee ñu dem ca booru Mérina Nguène ngir doon wut doon fa ca diggu waalo wa ak jolof ak kayoor ma kajoor ndax xam ngeen ni ci weeru décembre atum junne juróom ñett téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent décembre 1859 ci la sëriñ si ñu doon wooyee les marabouts réformateurs ci la ñu xeexoon ak beneen pàcc bi ñu doon wooyee ay conservateur ñi ñooñ dammel ma Ngóone Latiir waaye jamono jooju fekk na dammel nekk ci tawat ju metti ndax ci weeroo ci topp ci janvier ca la saay ca la wàccub liggéey ca la faatu kon xare ba bàyyam ma koddu moo ko jiite woon ndax fekk na booba sëriñ si jóg nañu àndandoo ki leen jiite woon doon sëriñ alelo Tumbe Njaay ca Louga demoon nañu ba lakk sagata caxat-caxatee kantoog ba ci sëriñ soose nag directeur des affaires indigènes mii di Félix moo sàkk woon ci yoom leen nag man ngeen a dellu kajoor bu ngeen demee rek kilifa yee ñu fay fal na ngeen déggante ak ñoom kon du am benn jafe-jafe xare boobu wax nañu ni mu ngi jaaroon ci Sàmba Maram Xay Sàmba Maram Xay mi nga xamante ni bii ñoom tubaab yi wax nañu ni moom ma joojo dégéen la bëggoon mu falu ngir bu faloo mu mën a doon jëwriñ mbul jamono jooju moom Sàmba Maram Xay ñu ngi woon ndar tubaab yi nag wóoluwuñ ko woon teg nañ ko bët mel na ni sax dañ ko faa téye woon ci ñàkk bañ ñàkk sañ bañ maanaam otage tubaab yi nee nañu bu leen rëccoon itam ñoom tubaab yi danañu ko topp buñ jàpp ko li nga xamante ni bii kilifay kajoor yi itam bu rëccoon danañu ko jàpp la bi nga xamante ni bii nag mën nañu wax ni mooy la waxub tubaab bi te mooy lingeer debba sukka tubaab yi ñu ngi xalaat ci candidature am boobu ñoom sax dem nañu nag ba engagé wu ngir ñu fal isa tenn moomu di Linguère Debbo Sukka gouverneur Faidherbe jël na décision maanaam am na yéene ca bureau ba mu nekk ca Ndar ngir ñu fal Jabb Sukka waaye ca Kajoor ñoom ñoo ca àndut ci am lingeer bu jigéen ndax loolu daal ba dameel di am ba léegi maa ngi naan lingeer bu jigéen dameel bu jigéen dameel Fall lay sant te góor lay doon kon tey bu tubaab yi bëggee jàppale lingeer isa tend muy debba sukka ngir mu falu mooy loolu ñu doon wax ni Demba War moo doon wax ni ana dameel ñu ni ma nga ca ngéwél ga di léttu daal loolu duñu ko nangu ci juróom-ñaari fan ci weeru février moom Linguère Demba Sukka soññaat na Faidherbe ci kanam yi kajoor yi ni ko ndagam jàmbur yi tàndaloo woon nañ la yow Faidherbe dama bëgg nga tànn ma te it jàmbur yi nga xamante ni bii ngi nii di ma dégg képp koo ci xamante ni bii bu ñu ma tànnee di nga wane sa ñàkk la maanaam li tubaab di wax menace de mort moom la leen liggéer debb su ko wax ni bu ko tuwaab yi tànnee képp koo xamante ni bii àndoo ca sa bakkan mën na caa des kon mbokk yi lii musta xew kajoor ndax dameel Birima Ngone Latiir saay na fukki fan ak benn ci weeru janvier ba ñu ngi ca février te ba léegi mënagunoo fal ab dammeel waaye li ci laxasu mooy dammeel gi nga xamante ni nar naa rëcc géej yi néegub géej loolu jafe-jafe la boo xamante ni bii musta am kajoor kon isa tend ma ngay menacé ku àndul ci palam gi bu ko tubaab yi falee wax ni dana la faat kon mel na ni li ñu nu cërale woon ci waxtu mat na dañu leen di jox dox daje rek ci juróom-benneelu pàcc bi ñu di leen sant di leen gërëm eh, tey am mbégte ci teewlu gi maa ngi wax si mm, juróom benneelu waaye ci juróomeelu pàcc bi muy cinquième épisode bi nga xamante ni bii moom la jeexal maa ngi leen di jox dox daje kon ci juróom benneel ba ba xam fan la wànneen di mujj ak ay bëtam kajor kan la ñuy fal damel xanaa di leen sakku rek ngeen abonné ci seen chaîne bi di bëgg vidéo yi muy di ko aimé ak di ko partagé muy di ko séddale maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf waaye français lan na gooru Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen ndax ñu yaatu xamnañu saamu i cereefi soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala ba ñi la ke imbulaañse daf ko ci laaw la ma faraañse ñoo gene lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami abdu buukar